no. Samba Samba Samba Samba may leen ñu may leen ñu seen time dina ñëwaat may leen ñu ako ko ba sañal ngeen ko bisel mom bu ngeen dem li ngay wax akkor saba sangal kolu alal tulo yele alien damboy so sanni foto kan lo murula kan nga sañ kan muy dem midin deglu sama ko lo dem dum ko ko waxat ko ako mitimo mem ku kuma yata je ni tata yele la moy yo mem banke je ni sa su sa dande waaye saba sangal ñëwaat nañ fii si ngeen sangal ako saba sangal naata nuñ tan ngeen sangal UDP bankota wa amneta amanke sainti sango sanka palele ako ñilamu fast ñilamu last ako sen adama wabita star house le saba sanjal kolu natal baroy saba sanjal doku al safaye ako baroy mu nekk jan amuñ amuñ député akon mansilo manjilo soto mandibito soto men ɓe ɗo ko kela mawle min kansilo logeyonoñi saba sañal ako kansilo man ɗo ko ke mawle saba sañal saba sañal lanne ragale baro di nekk gannaawo akon boɗon ɓe ɓulala baro nomamo munela mane baro dafa fatte bis buñ demon dibakunda kerat ako baro ñinata lum men nantana dibakunda isenu dabo teyelti loxo noko baro yow la ñuy taxawal ku bëgg isenu dabo bëgg ko ku bëgg baro bëgg ma ako potelli dalay taxaw ಅಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಡಬ್ಬರ ಲೊಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಆಟ ಪಟೇಲಿನ ಕನು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರೋಲ್ಲ ako saba sanjal nalɓe siinola wato sita alebo siinola ako udp parti o e lotale ando alan inchallahu ɗi saɓande faam e tellaɓe tiilam masakundako a ko mbemtulunere ngabro ko siye de karto fayo keso dirira ako wa toto tambitale min dañu lëggee si réew mi saabu ceeb seer na saabu gutu diwlin seer na amuñ ndox amuñ dara doom aadama yi ñu ngi bëgg a dee soo bayee gerte gi doo ko jënd engrais amul ako ko bankoɓe kolyaani maniboto dame koleyari ne jambando fanan sotoɓe koleyari dafay som si loolu président Ousseynou Dabo moom lañ koy dem mu liggéeyal ñu Gambia doomi Gambia am jàmm ako parti leader Ousseynou Dabo atele to don si banko bandino sula koolu ata don sa jarano moole mane bu leen tarde de atele be sila sira on kono Samba ku ma topp di dangay tarde man dem naa te du a akata siyamano ter bomba dummellano yeɓlanoma min naata a tatarale min manna a tatarale andu décembre du fraude useynu damo e ɓole kankulala ñimbanko président useynu damo sosnala mali rokkilo maynama bool di mewo banjul gayitinen ko liggéey si sinci ndiabo school ban fe amuñ ndox jàppale ma nga may leen ndox ngir yàlla sa jëmiro sorula ako parti leader rahim malik lo ay bowanol dila ɓe aɓe sincun jaamo raskulo beteya ha jikodi alala ha jikodila seeɗu dawbo luñ ko bi ako hamme ko alo mari masatalla yake la ñu yàlla ako alo mari disamba ndi fot ye kankula banko président tant gërëm leen ako mbal tantula mbal jayila ala baraka waaw nit bu waxee loo xam ne ci biiram la ko tibee ak dëgg ko dee xam kenn du ko dee laam-laam yi jërëjëf madame. donc abaraka Mbacke. ah jërëjëf Diassi Ndao. bila jamo beti ada Mbacke. ah sa wax rafet na. yéen même fo Abilade wala Ndiamba. noo waaye noonu la tëree. 2021. 2021. Loya Ousseynou Dabo la sawolem. Ah, atam Loya Ousseynou Dabo la. UDP la sawolem. Atam UDP la. Woto yasin be daminto kon yasin fum ne ala ta saba sanjal be tara wole dafa buka saba sanjal yam ne to bango be di say tale a ah, rew bi dafa di say bapore sa be min kumandila legi ku ñoosi be mandi sane kumandila ñu ndewa mandi sane asidiya mu sutu soto jam nga wa wa watan bu gata be do day sikatala mandi fo mu to tollu ak selfie bismillah bismillah mandi sane ala bala man kilaw ni kami wali jubila ka tumana ni tol ka bakon konna saya jalo na jobu ni na jola ka ah saya tambe bala tambe lo dia ba tambe do try fam fala tolu dañ ko sola na ñew fi try fam be ba tambe do sola nay la fo mu ta tolu ñewal fi Baul. Assalamu alaikum. Ah man di mu ne assalamu alaikum mbooloo mi. nde UDP ɗi wonde gonɗonna. ma ngeen nuyu doomi UDP yëpp. nden mbar ma gonɗonna men geɗa ko seen. ah ma ngeen nuyu Soumane Ndiaye di regional chairman Seyni Sabali. Gambiyanko la Nelson Mandela. Ah Gambia sen Mandela. nde ba kuma kelen na fo Saba Sandial Nkole. dabban tutoti lay wo wa Saba Sandial. Ousainou Darboe la jural Gambia diŋol la waaye Ousainou Darboe dañ ko amal bor te dañ ko war a fay sandiyamu tujoo juloo joo waatoo siita léegi fay bor bi moo jot nañ leen ko fay boram hande ngol ko ñiiña naata jooru suwaɓe tenti suudu waaye ñu ne joso soosey ñu ne kollere gannaaw rek la mun a féetoo Ousainou yàlla di mbaa tujeela naafuloo tujaa neela Gambiyay waaye parti leader dafa sànni njobotam teg alalam teg bakkanam gis Gambia mu sowe parti leader am na aduna ak lu si biir yëpp su fekkee ne Gambia ñorut ko dafay toog rek teglante loxo toog di seetaan. ani bara ma ga Gambia le kanu ani la Gambia ko be la gis Gambia moo ko ñor askan Gambia moo ko ñor moo toog telut nelawut mu ngi taxaw tànkam bépp gis mu sooyee Gambia. Gambia waaye Gambia ko rek jigéen mag ak ndaw jot na pour ñu fay paa bi vlepe di sot wak di soman di fok kasi yu di bi nañ ko feesal top top top top ñu dem dem gunge ko state house nuyu naa leen adama baro adama yen sawolon dama adama baro yalla yalla ci sama di fok ñu déclaré à partir de là monsieur le Dabo le président du réew jërëjëf jëf abaraka baaje man

man la naa waal ne ma ne politique naxante jeena Gambia mu ne ku ku ne fu waay ne na nga pare pare ñu sandi karsa di parti leader lawyer Ousainou Darboe yóbbu ko State House ñu ne bu fekkee ne ñëpp leer nañu su fekkee ne alal moo ko jiital kon tey du gën a pale bi gannaaw Barrow topp lu Barrow wax loolu laay wax waaye du musa gën a State waaye lu mu Gambia di demee baaxut baaxul si askani Gambia baaxul si wàllu welu ko am moo tax mu gën a pale bi many are not for a patriot, a a because of mu gis nañ Gambia fi ñun yëpp ngir xaliss ñeneen ñi jël sen parti jaay ko ngir pos place ñu lay jël sen ngor jaay ko leer ñun duma la nay wax ne ni sa try sabah sanjal sabah sanjal la ñu bokk min min ɓeyɓe pareeri pour ka seydamo samba paale ɗo kamɓe ñu bokkal fo bokka si gaay ñu sandi côté leader ñu yóbbu ko state house kon laata moolu wo mon ni taala jeen ñu fa wo o ñewut wo na askani gambia bi yëpp décide nañ pati dina dem kono la moolu kam kon man la naa ñaan ngir yàlla nay la ñëw fekk si askan bi gambia bi yëpp o ko alinga ka ɓe yaya bonndi la a ah, ne nay leen dem Adama Barrow dina fi génne Yaya waaye waa fii dañu wax ne Yaya Jammeh du musa daanu. yan yëpp ngeen bañ wooteel fi Yaya. mu ngi nii delluwaat nañ fi encore ñu ne Barrow baaxut lu ma lebedoo bi baaxut nay leen ko génne. yow nañ fi encore di leen ko waxati. alors li ma soog fana mboolu ba bonte la. buñ nangu tamit ñu ko fal ñu ne dañ koy fol dañ nañ ko fol. ani ala kiri daa la. te bu si yàlla àndee. son dañuy na ko kafe fay naa la. yaakaar naa ne élection buy ñëw nii. yaa mooy wiiw. soo déggee wiiw. UDP la. UDP la. yàlla na yee. kum ne. UDP la. UDP la. UDP la. UDP la. maa ngi leen a sant ki leen gërëm jërëjëf alaaji booto seedi dieng ngi alfa kuma fo iñanta fole baadiŋol le iñanta fole feemol le gambe parata le woto bootoye men fo saba sanjan jen sanjan aliŋata moolu kanal dan wotala yamaro ñiñata booto seedi dieng a baraka honorable honorable jërëjëf emin fo abilaaru wala ñaama waaye loo waaye noonu la mbir bi tëree Gambia yëpp decide nañ Gambia paretale Gambia decide nañ Gambia pare pare. Gambia di sarif nañ. Gambia de Ousseynou Daabu Dambala. Gambia yëpp gannaaw seen Daabu lañ nekk. wala ba kii la jàmm. te loolu mooy am. ndaxte sama sanjaan fa ne daay taraje. te bugal nañ waa sama sanjaan ngeen bokk si. ñu silo al daay taraje. ngir yàlla ñaan naa leen ngir jëmm Rasulullah bokk leen si yoon bii. walaati nan naata jàmm. lii moo tax ñu ñëw fi tey. Eh, mais la diam ko. pour mu waa waa sama ne. sama sanjaan man foo UDP kono a ah, sama sanya ñakku si UDP UDP ko ah, sama saji diwol wala place soto UDP doomi sama sanjali rek ñoo jël makkaam UDP woni euh, tuureɓewole kono bani loya bani tuureɓe dena ɗega fof la ne alla oli diba woda fana tele siri sen oli diba woda bo dena ɗega fof la ne a ah, fana mo saba sali an diwole ɗo mi saba sali alla momoɗo sabal fana fele siri moɗo sabal di commandant of udp mon taɓe ɗomi saba sali alla aboɗo saba sali ali ila ɓaye ko not ban de sonta not ban jam ɗo ko nayi saba sali diwole to gon ah, a tanna ɗomi saba sali ali yake kiyamanoɗi ɗiɗof ko ciyaman woto saba sali ali kon wa saba sali al almon fo fen ne UDP dakk leen dara si biir UDP alkartel UDP la kon nag seen kartel UDP al lafta min na loo leen soxla al mamli soto sanji tan sabo ko am na am leen ko fanweeri at yulba si la la waaye seen doom bi dinañ leen ko jox woto mi laa min kumandi la ku ne aussi le Momodou Sabal fon kumandi la ñu ngi seen doom seen mag seen seen tab jëkkër wala ji Modou Sabali commando of the United Democratic Party Sabali ne wulu Sabali ne wulu salo sabako wajale ko nende diya mula janne ibra sini fura ma bala o sini fura ma o la ma wulu o mula janne muso bala ne sama senya to kala problem la ma sama bala sama ma so bala lori sama sana ko ne na ku tala ni jano ko le sama sana ko